Euh, waaw kay comme ni nga ko waxee rek projet Ousmane Sonko Mame Mbaye Niang ñu dàq ko bala trente mu tombeeg weeru koor xëy na dina fekk mu nekk ci digg weeru koor wi waaye nag lu gënoon mooy ñu génne ko ci weeru koor bi jëmale ko ci gannaaw weeru koor bi wallahi lu tool ni weeru koor moom daanaka sellal rek moo ci xaj leneen lu di sellal xajut ci te projet boobu noonu dafa nekk projet boo xam ne bëri na lu mën a yàq ci réew mi waaye bëri na lu mën a gàllankoor ci réew mi bëri na lu mën a gàllankoor ci ay nit dañoo wax projet Adji Sarr waaye projet bii lu mën a yàq sax xëy na moo ëpp lu projet aji Sarr man a yàq ba tax na la gënoon mooy mu nekk projet boo xam ne dañ koy dàq ba gannaaw koor gi jeex ndaxte koor dafa nekk loo xam ne mbiru diine rek moo ci xaj leneen lu dul mbiru diine xajut ci te projet bi dafa nekk loo xam ne nekkul projet kese tënkuwul ci projet kese dafa ane am yeneen yoo xam ne daf ci laxasu yoo xam ne xëy na bokkul ci projet bi kon gouvernement bi ala kulli xaalin la doon gën ci moom mooy mu dàq projet bi bañ génn ci koor gi. ndax projet bii nag buñ ko seetaanee bu ci kilifa yi waxul bu ci mag ñi waxul dina nekk projet boo xam ne la 30 bii di ñëw dañoo koy dàqaat te boobaa dina am xat-xat mën na nekk projet boo xam ne mën na dem feeg un an te un bu nekk boo woytul dinañ ko dàq mu am ay xët-xët am ay jafe-jafe ba tax la lu jar a bàyyi xel la waaye tamit lu mat a bàyyi xel. Abonnez-vous, ciao le Sénégal